برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن يوينان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين <clears throat> مدينة كولخ أواخر شعبان ستة وخمسين ثلاثمائة وألف هجرية والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أوصي كل من يسمع عني بالمحافظة على أداء فريضة رمضان الذي فيه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من شهد منكم الشهر فليصم وعنه صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وأنه صلى الله عليه وسلم ثلاث من حفظهن فهو ولي حقا ومن ضيعهن فهو عدوي حقا الصلاة والصوم والجنابة وعنه صلى الله عليه وسلم لمن قال له مرني بعمل ينفعني عليك بالصوم فإنه لا مثيل له <clears throat> وعنه صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وعنه صلى الله عليه وسلم صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء لكل شيء زكاة وزكاة الجسم الصوم والصيام نصف الصبر عنه صلى الله عليه وسلم الصوم في بعض البلدان أفضل من الصوم في بعدها حسب قوة الدين في محل وضعفه في محل يدل عليه ما روي عنه صلى الله عليه وسلم رمضان في المدينة خير من ألف رمضان فيما سواها ألو ألو أمين أخوك الشق إبراهيم من أحياء الله التجاني لطف الله به وبأحبابه آمين لا تربي باينكو بندر رضي الله عنه radiallahu فر ألو digle ak fàttali warak ak weeru koor ak so ci or weeru koor nga xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko digle gannaaw alhamdulilahi rabbil alamin rahman rahim maliki yawmi din nga xam ne junju bu boole mbooleem luñ soxla mu ne ci mujjëk weeru chaabaan ci am junneeg ñetti téeméer ak juróom fukk ak am ne weeru koor pare xol yi pare jaam yi nga ne lag weer woowu tàmbalee waxam ci jamono ñi ne ci tàkkusaan ñi ne ci jamono yonentu bi sallallahu alayhi ci ci la gëñ lan lay gëñ nag yàlla buy gëñ pour xamale ne li muy wax nii lu am solo la luñ feddali la li war a wara li war a li war a waral ñiy feddali wax dafay fekk ki ñuy wax wax ji <clears throat> mu am ci defle mbaa mu weddi ko waaye xaalis zihni duñ ko li wax lu may pour wane ne wax ji dafa am solo ba bañ wàccee ki nga xam ne weddi wut dengi dengi wut ñu wàccee ko wàcc waaye kuy weddi ak kuy dengi dengi emul rek ci gëñ waaye daf ko feddali ci baatab inna arab lu muy feddali lay commencé inna inna al insana ba pare dugalaat na laam ci la fi xusrin loolu yëpp pour feddali li muy wax si nii pour ñu xam solo gum am yàlla gëñ na ci jamono ne nit mu ci lu may ña nga xam ne maanaam ñii mu tudd rek ñoo génn ci perte googu kon ku bëgg a génn ci perte gi yàlla wax ne doomi aadama yi nit ñëpp ñu ngi ci fexeel nga jël li saar bi tudd ne lu may ñooñu nga jéem a jikkoo jikkoy ñooñu illa alladina amanu nera ñi nga xam ne nii dañoo gëm yàlla wa amilu saalihaati jëf farata yi ak naafile yi gëm yàlla moom mooy bopp bi xam nga ne imaanu maa waqara fi saddaqahu al amal limaan dafay sax ci xol waaye jëf daf koy dëggal waaye gëm naa rek te too jëfee loolu du gëm gëm yàlla moom mooy ngànnaay bi nga xam ne dëgg-dëgg ku ko am yàlla dana la musal ci lépp loo ragal dana la dimbale wa kaana xaqan alayna nasrul muminin yàlla moo wax ne moo waral def muy wareef ci moom ne dana dimbale jaamam yi nga xam ne nii dañ koo gëm yàlla tabaraka wa taala ba tey wax na ne allahu waliyu alladina amanu ñi gëm yàlla yàlla mooy seen seen seen xarit la mooy seen aji aji méngoo maanaam buñ ne di wàllu yàlla la mooy xarit yàlla la yàlla def ko méngoo iman nag ku ko am yàlla dana la méngoo wa kaana xaqan alayna allahu waliyu alladina yàlla moo méngoo ñi nga xam ne nii dañoo gëm ba tey imaan <clears throat> yàlla waxee na ci ne wala yajal allahu lil kafirina ala al muminina sabilan way weddi ñi yàlla du leen defal yoon mukk ñi jëm ci way gëm ñi kon ci imaan rek la yàlla di dimbale jaamam wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum muminin bu leen doye bu leen jàq yéenay gañe bu fekkee ne da ngeen a gëm yàlla bu gëm yàlla amul nag yàlla euh, digut kenn kuy xeex ak sa noon daara ku ëpp pexe rek yow yaay gañe Omar ibn Abdul Aziz am Seydina Omar ibn Xataab daf doon yónni Saad ibn Abi Waqaas ci xare mu ne ko yow Saad bu mu la jëy nit ñi di wax naan Saad xaalu rasulillahi Saad nijaay yonent bi la ليس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته amul kenn ku am digganteem ak yàlla askan lu may askan boo xam ne mu ngi koy amee ci topp yàlla tabaraka wa taala te bu ngeen toppee yàlla yàlla dimbale leen ci noon yi bu ngeen nekkul topp yàlla nag boobaa comme noonu yi ñoo leen ëpp doole noonu yi ñoo leen di gañe te bu leen toog foofu di wax ne waaye suñ noon yi ñun luñ ees ees noon yi ñoom ñoo ñun ñoo leen gën a jub bu leen bu leen jàpp loolu ndax banu israila bañ toppee di def seen yu ñaaw yi yàlla dafa bàyyi seen noon yi ñu gañe leen te boobu ñoom ñu ngi téye ci diine te ñu la téewuñ diine waaye bañ jubadee yàlla dafay seetaan kon gëm yàlla nit mën na koo ngàndaayoo ba nga xam ne ku la bëgg a xeex te mu wér na la gënu laa jub gënu naa nekk ci yoon nga mën a sukkandiku ci sa gëm yàlla googu ne gëm yàlla dana tax yàlla dimbali ma ci kawam illa iman moy moy moy moy dayob lépp iman moy maye wilaya iman moy maye nubuwatu iman moy maye risala iman moy maye qurb min allah tabaraka wa taala motax baye mune gannaaw xewal ak xam gi la yàlla xamal xewal ak gëm yàlla mo gën ci sa xewal yi ndax lépp looy amati rek ci gëm yàlla lay teggu ab yonent du nek yonent lumay dafa nek ku gëm yàlla ab rasul du nek ab rasul lumay dafa nek ku gëm yàlla malaika du nek muqarrab lumay dafa gëm yàlla wàlliyu du nekk yu lu may dafa gëm yàlla moo tax nag lépp loo xam ne nii dafay dindi di wàññi gëm yàlla tabaraka wa taala loolu moom la jaam bu gëm ci yàlla loolu la gën a war a ragal lim gën a war a ragal mooy lépp loo xam ne dafay wàññi gëm yàlla te liy wàññi gëm yàlla dëgg-dëgg mooy bàkkaat yi rek lépp loo xam ne dafay mooy yàlla mooy yàlla la dafay wàññi gëm yàlla looloo tax mu raglu yu baax yépp tim li mu baax mooy ne dafay dolli gëm yàlla imaan ñëpp d'accord nañ ne dafay dolleeku dafay wàññeeku te lépp lu dolleeku rek mu ngay wàññeeku taxaw taxaw amul ñi gëm yàlla di jëfee farata yi ak naafile yi waaye di dénkante dëgg dénkante tim muñ loolu ci melow ñi nga xam ne nii dañoo jëm ci yàlla dañoo soxla loolu dénkante dëgg dénkante muñ mbaay ne maa ngi dénk képp koo xam ne dana dégg sama dénkaane maa ngi koy dénk mu wëttu joox farataay weeru koor weeru koor bi nga xam ne يلا دفنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ديغال بوبو نيغم يالا لا كو ادريس يين نيغم يالا يالا فراتال نا سي يين هور كم نمكو كو فراتال هون لين جيتو غير نك نين راغال يالا كور mooy digle bi lu tax comme ni mu ko farataale woon ci ñi leen jiitu pour wéttali jaam yi pour ñu xam ne mën nañ ko xam ne yonent yëpp dañ daan oor yàllaa ngi lay sawarloo pour wax la ne lim la sant mën na ko ndax santoon na ko ñi la jiitu waaye yàllaa ngi lay sawarloo pour boolele ci sette su baax si nga xam ne nii ñom ñoy jitu waye ngir lan nak ngir ngaragal yàlla tabaraka wa taala yàlla santu la or pour xiifal la wala pour maral la waye daf la sant koor pour tagale lek jikko yi ñaaw yi motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man lam yatruk qawla zuri wal buhtaani wal amala bihima فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه képp koo xam ne xoor taxul laa bàyyi wax ay duut mooy fen boo xam ne amul benn cosaan di nga wax neen ak fen ak di ko jëfee yàlla amul soxla ci kooku pour mu bàyyi lekkam ak naanam kon nga xam ne bàyyi lekk ak naan yàlla daf la ko defloo pour nga bàyyi jikko yi ñaaw xam nga doomi aadama nim miine lekk ak naan bu ko yàlla aayee mu bàyyi ko dëgg-dëgg dana ci mën a jëlee kàttan yi bàyyi yeneen yi nga xam ne tim mu ngi ci woon ni lekk ak naan nim ko miinee bu ko yàlla aayee mu bàyyi ko te yàlla xamal ko ne loolu rekk taxut muy oor mu xam ne bàyyi lekk ak naan rekk duut or waaye coono la du ko booleek toggo yi nga xam ne nii dana ko yàqal njëriñal coono boobu nga xam ne moom la nekke muy bàyyi lekk ak naan or ñetti daraja oori amatu yi mooy bàyyi bànneexi lekk pay ak biir ba fajar di xaree ba ba jant bi di soxee oor yi xaasatu yi mooy dañoo téye seeni cër bàyyi seen mboolem cër bàyyi lépp loo xam ne nii rek neexut yàlla tabaraka wa taala ñoom ooraale nañ cër yëpp oor nañ biir bi ak pëyi rek oorut waaye seen cër yëpp oor nañ làmmi yi oor na jàpp na ci bàyyi lépp loo xam ne nii waru koo wax bët oor na ci gis lum mu warta xool bakkan yi oor na ci xeeñtu lu mu warta xeeñtu nopp yi oor na pour déglu lu warta déglu loxo yi oor na ci jël mbaa dóor lu mu warta def tànk yi oor na ci jëm fu warta jëm cër yi doomi aadama yépp daal ànd nañoo biir bi ak pay bi ci oor loolu mooy oor yi xaasatu yi waaye xaasatu xaasatu yi nga xam ne ñoo gën a kawe dayo ñoom seen or mooy saamu an kulli ma siwa allahi tabaraka wa taala mooy amsaku an kulli ma siwa allahi tabaraka wa taala mooy bàyyi nañ lépp loo xam ne nii duut yàlla tabaraka wa taala génn nañ ci loola loolu mooy or ak xaasatul xaasat yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ahlul manzilat al ulya min xaasati ibadillahi tabaraka wa taala ñooñu seen koor mu ngi noonu mooy koor gi gën a màgg jaam bi dafay oor pour topp yàlla ñi gën a baax dañoo oor rek ngir topp yàlla ngir yàlla ko xeyoo loolu tax koor daanaka danga gis ne melaw yàlla la yàlla du lekk du naan melaw malaaka yi lañ malaaka yi duñ lekk duñ naan moo tax yàlla wax ne assiyaamu wa ana ajzi koor man yàlla maa moom te man yàlla maa koy fay yàlla mooy fay jëf yépp lu tax mu jagleel koor ndax ba nga xamee ne jaam bi bàyyi na lépp bay niru niru lu malaaka yi ñu ne sax wala yàlla sax moom mooy fay koor ci boppam ànd loolu yépp li njëriñ la mooy nga àgg ci tax wallahi tabaraka wa nga xam ne kon nit man na am iman te fekk àggagut ci taqwa ndax taqwa dana tax jaam bi teet mbooleem mbooleem tere yi topp mbooleem ndigal yi indi nañ nit ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk dafa dafa dafa mandi am ñu koy saaga yonentu ne bu leen ko saaga bu leen dimbal seetaane ci seen mbokk mi man moom ku gëm na yàlla kon maanaam gëm yàlla terewut jaam bi léeg-léeg mu moy waaye bu àggee nag ci waa nga xam ne moom la koor soxla ndax yow ki gëm ragalal lañ wax nga xam ne gannaaw bu gëm jëfe ragal moom mooy topp ndigal yi bàyyi tere yi loolu ci la koor di jëmale jaam bi jëfi lislaam yépp pour tëzkiyatu nafs la te ku nekk rek mën nga ko xool ci sa bopp boo ooree da nga gis ni nga xam ne jëf ju baax noonu la lay gën a yombee nga xam ne mën naa àggale ci taqwallahi tabaraka wa taala yàlla wax na ne weeru koor bi nga xam ne ci la yàlla wàccee alquran def ko muy njub ñeexal ni ñëpp alquran njub la pour ni ñëpp waaye gis nga ca ca tàmbali saar ba alif laam mim dalika alkitaabu laa rayba fii hudan lil muttaqina la wax njub la ñeexal way ragal ñi yàlla fii mu ne wa hudan chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi weer wi nga xam ne ci lañ wàccee alquran muy njub ñeexal nit ñi alquran njub la pour nit ñëpp waaye ñenn rek ñoo ci jubee mooy ñi ragal yàlla moo fële mu ne laa rayba fihi hudan lil muttaqina njub la ñeexal way ragal yàlla ñi mu ngi mel alquran وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين تا القران دي موم لاي واخ في ني نجيب لا ني ني فلي نك واتي نان القران لو خم ني سافر لا يرمان لا نيهال نيغا خم ني دانيو گم ناخ ني گموت دون جيرينيو لولو موغي ملني آه، نيت كي فيبر ني جوخ كو غراب غراب غي نك في موغي دك غراب غي تا موم دوكو جيفانديكو كوكو غراب لا واي دو غراب موم ناخ غراب ووكو alquran njub la pour ñëpp waaye ñi koy juboo ñoom lay jubal téere la boo xam ne tim dafay bidalal nit ñi yooni njub téere la boo xam ne dafay fasale diggante dëgg ak nar moo tax bokk na ci turi alquran yi alfurqaan moo tax bàyyi ci tafsiram mu ne alquran ñaari tur yi nga xam ne dëgg la alquran am na lu mat juróom fukki tur ak juróom bëri tur dafay tegtale tedd ak ki ñuy tudd waaye ñaari turi alquran yi gën a siiw mooy alquran ak alfurqaan alquran moom mu ngi ko jëlee ci xaru ndax noo ñuy jëlee alquran ci xaraa moom mu ngi ko jëlee ci xaru buy firi boole furqaan nag mu ngi jigee ci faraka yi firi fecc bàyyi ne moo tax jaam bi ñaari ture alquran yooyu la war a boole pour mu nekk ku mat dafay am ko dafay àgg ci jamu jamu mooy mu àgg ci maqaamaay eh, ñi nga xam ne dañoo jeex ci yàlla jës bu ba nga xam ne gisatuñ leneen waaye loolu duut mat waaye buñ demee ba nga xam ne nag seen ak gis bu googu génn nañ ci ànd ak demaat ci farku di fasale lu lu xeeyoo pee bi bi ñu jox ko pee bi yàlla bi lu xeeyoo jaam yi ñu jox ko jaam yi xaqi chariatu ñu jox ko charia xaqi xaqiqa ñu jox ko xaqiqa ñooñ ñooy aarifina billahi ñi nga xam ne moom la bàyyi wax ne al man la yamnau farquhu an jamihi wala jamahu an farqihi mooy koo xam ne daj du ko teree fasale waaye fasaleem tim du ko teree boole koy xam ne dafay wax ne dara nekk fi lu ma yàlla te terewu ko julli kookooy ki mat waaye dara nekk fi lu ma yàlla te du bu julli jotee du julli te bu eh, lekk jotee nag mu lekk loolu moom eh, bokkut ci ci ci ci yoon wi xaw ma yoon yi kan la waaye du yoon yonent bi du yoon yi eh, Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ku gis weer wi na nga xoor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 أما الخصلتان اللتان لا غنى عنكما بشهادة أن لا إله إلا الله تستغفرون وأما الخصلتان اللتان تردون بهما ربكم فتسألون الله وأما الخصلتان اللتان تردون بهما ربكم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما تسألون الله الجنة وتعوذون به من النار yonent الله عليه وسلم sallam nee ويركور na ngeen ñaari jikko yo xamne ne da ngeen koy gërëm looye seen borom mooy ngeen di wax ashhadu la ilaha illa beneen bi mooy ngeen di bëril di wax astaghfirullah xam nga loolu moo boole tur yàlla tudd yàlla bi gën ak ñaan bi gën xayru zikri afdalu zikri laa ilaha illa allah wa afdalu duaay astaghfirullah yonent bi sallallahu alayhi wa na gën ci zikar mooy laa ilaha illa waaye gën ci ñaan mooy ngay wax astaghfirullah kon ñaar yooyu la wax ne nañ koy bëril ci weeru koor pour gërëm loo yàlla defe naa ne ku am wirdo wii di ko def loo sàggan sàggan ci wax ñaari baat yooyu lum néew néew danga ko wax ci bés bi ñetti yoon ñetti téeméeri yoon wala ñaar téeméer ak da nga wax laa ilaha illallah yoon ci suba da ko wax téeméeri yoon ci ngoon da nga wax astaghfirullah téeméeri yoon ci suba téeméeri yoon ci ngoon da nga wax laa ilaha illallah ba tey téeméeri yoon ci wazifa danga wax astaghfirullah alazim la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ba tey fanweeri yoon kon bii da ko wax ñetti téeméeri yoon bii da ko wax ñaar téeméeri yoon ak fanweer ci ñu gën a néew ñi nga xam ne ñooy sikarkat yi ci ñu nekk ci yoon wi nga xam ne bàyyi moo tax muy wax ne xawma ci maslaha ñan la ñuy weddi tariqa yi di weddee tariqa ñaari jikko yoo xam ne mënu leen a doylu walis ko mooy ngeen di ñaan yàlla mu may leen aljanna di muslu yàlla it ci safara loolu ci jikko yi nga xam ne dañ koy jikkoo ci weeru koor la yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ne nañ koy bëril ci xadis yooyu nga xam ne Salmaan nettali na ko ne yonent bi sallallahu wax na ko ci fi axir yowmi min Chaaban hmm, lislaam mu ngi fondement ci baa ci sedd mi shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadan taxaw al julli mooy nga def ko ci ponk yi ak ci sart yi ak ci waxtu yi joxe asaka bu la waree or weeru koor bu ñëwee aj ne góor yàlla bi boo ko mane ron na ba tey jógee ci yoon sallallahu alayhi wasallam mu ne ñett ku ko wattu suma wàlli yu la dëgg ku ko sànk it suma noonu la dëgg julli ak xoor ak janaaba tukkee na ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy tontu ku ko doon wax ne ko digal ma jëf ju jëriñ yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko alayka bis sawmi fa innahu la masila lah taqooxal koor ndax koor amul dara lu mel ni moom nee na assiyaamu فلا يرفس ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم نينا كور فكلا كور دو ديف جفي جن طب موي جفي موي ونيك ولا يجهل موي دو توني li waaja wana wa najhalu fawqa jahlil jaahilina mooy tooñ tooñ lay firi ko ndax jaahiliya boobu nga xam ne ba léegi nit mën naa nekk ci jamono lislaam jikkoo ko du ne réer ak jaahiliya gi la ñuy wax waaye tooñ la bi nga xam ne nii jaahiliya daanaka loolu mooy doon seen melokaano gi nga xam ne si seen melokaana yi gën a mel loola ndax tooñ mooy teg mbir ci lu dul barabam loolu la arab tooñ mooy teg mbir ci lu barabam moo tax tooñ yëpp li ci gën a màgg mooy bokkaale yàlla ndax dangaa jël leneen lu dul yàlla def ko mu yàlla tabaaraka nit xeexeek moom na ko wax ne ko man damaa xoor man damaa xoor baamtu baat boobu baat la waat la bu jëm ci ki muy wax ak waaye waat la bu jëm ci moom moom moomu tim waat la bu jëm ci moom mi nga xam ne ni mu ngi wax loolu ndax bu boobaa mu ngi fàttali boppam jikkoy koor pour mu mën cee tënku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digaloon na ndaw yi yaa maachar alshabaabi man istataa minkum albaata falyatazawaj wa man lam yastati fa alayhi bisawmi fa inna lahu wijaa ku ci mën a denc jabaat na nga denc maanaam lu am moye bu ko mënut tim te yaa ngi yëg say bànneex pour nga musal sa bopp ci loolu na nga xoor ndax xoor dana nekk tap ñeel nit ki ci walis bànneexi sëy yéen sallallahu alayhi wa wax na ne ku oor weeru koor ngir gëm yàlla ngir sàkku yoolab yàlla yàlla baal ko li jiitu woon ci ay bàkkaatam kon loolu kuy oor nang ci bàyyi xel gëm yàlla ak sàkku yoolab yàlla su kenn ci yonent sallallahu wa sallam mu wax ne bu weeru koor duggee dañuy ubbi buntu ajjana yi tëj buntu safara yi ba pare tënk seytaane yi ci beneen riwaaya Tirmidi moom dafa wax ne suffidat marad maradatu shayatin maanaam seytaane yi fetteerlu ñoom la ñuy tënk foofu tënk na ko ci ñooñu ndax bu ton ak lulu do gis kuy def ci wéru koor jëfi ñak top ndax am na ñoo sax ci wéru koor lañuy gëna kacior ñu ndax ba yalla digalé or leen or moom ila wax ne comme man liñ digal nit ñi def mako man bo fi nek di jema ci dara na tukkal adina waaw na won beccëk bi ne ko ñi ñoy top waye man man top ma dara waaw buñ éwé seetaane nit ki do seetaane nak لا القران تبنى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا بن اوي شيطان نيت كدو شيطان مون شي بوبم ياو شيطان اي دافاي نيولو دول شيطان واي دو تري باتاي شيطان مي ام واي خم نن نيت جيف لو باخ سي وير كور لي غنا يومب تيت لو بون سي وير كور لي at janna ci weeru koor la gën a yomb bu jëf lu ñaaw gënee jafe ci weeru koor ñi xam ne tim maanaam safara ci weeru koor la ci jaam gën a mën a mucc buñ eewee seytaane yi ci riwaaya bi nga xam ne jéng rek seytaane yi la wax wala ci riwaaya imaam Tirmidi ñu eew maradati maradati shayatin seytaane yi ponkali seytaane yi la ñuy eew lu mu ci mën a xew weeru koor weer la boo xam ne jëf lu baax daf cee yomb jëfi arjaana daf cee yomb jëfi safara gën cee néew seytaane it gën cee néew doole ci riwaaya imaamu tirmidi bi ci xadis bi ba mottali na ba tey ci guddi gujot ci weeru koor aji hoote dafay oote di wax ne yaa baaxiya alxayri aqbil wa yaa baaxiya sharri aqsir yow kii sàkku lu baax jublu sil maanaam ku sàkku lu baax a ngi nii yow kii sàkk lu bon dëppal ndax waxtu wi duut waxtoom te yàlla am na ci ay utaqaa min annaari fi kulli laylatin guddi gu jot rek yàlla am na ci ñu muy goreel ci safara comme ni nga xamee ne xadis yi Salmaan bi ba tey waxaat na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne cheikh ramadan ci weeru koor awaluhu rahmatun wasatuhu maghfiratun wa axiruhu itqu raqabati min annaar njëlbeenam yërmaane la diggam njëgal la mujj gi goreel la ci safara kon tekki wut ne ben gi duut goreel ci safara tekki wut ne mujj duut duwut yërmaande waaye bu ci nekk dafa am lu mu gën a jagoo waaye terewul ñi bokk yeneen yi ndax xadis yi di wax ne guddi gu nekk am na ñu yàlla di goreel ci safara kon nga xam ne goreel ci safara gi bési weeru koor yëpp la waaye nag bési mujj yi mooy bi nga xam ne nii moom la gën a jagoo ndax bés yu mujj yi lu tax mu gën a jagoo ndax dafa mel ni jaam yi jiital nañ ay jëf yoo xam ne nii lépp lu ci nekk nii dafay gën a yombal jaam bi mucc ci safara tukkee na ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu wax ne ku dogal ku xoor da am lu mel ni yoolam moom gannaaw bu mu waxee loolu te du tax ñi wàññi ci sa yool dara am ku wax sahaba yi ne yonent bi waaye ñun ñëpp amuñ lu ñu dogalee ko xoor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yutillahu hada sawaba man fattara saiman ala tamratin aw sharbati main aw masqati laban yàlla dana jox yool boobu ku dogal nit ci benn tàndarma wala ci guuxini ndox wala ci guuxini ci dogiti meew boo xam ne ni nit ki jox na ko aji xoor mu naan ko dana la yalla jox lu am ni jolab koram gi te du tax mom yolam bi dara ko ci ci di ko la bok bàyyi neena lu nek amna asaka bu wara genn ci moom asaka yaram way hor neena or moy genn wali muñ te xam nga muñ muñ rek ci la yalla wax ne ña koy def ñom da leen fay ci lu dugul limite innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi xayri xisaab way mu ñi yàlla da leen jox seen yool ci lu dugul lim bayne na or nak ci yenn rek yi mo gën or ci yenn dëkk yi ci kem ni diina degeere ci dëkk yoyu ak ni diina xoyofé ci dëkk yoyu mu ne lii tegtale loolu xadis yonent la salaay salaam ne or ci Medina am gi moo gën junney xoor ci barab bu dul Medina a Munawara jumaa ci Medina moo gën junney jumaa ci lu dul Medina waaye da gis ne léegi nga gis ku mën a warante léegi ne la waaye Medina la waxut yeneen dëkk yi waaye xadis yi fi nekk di tegtale ne def lu baax ci dëkk bu baax dafa gën a baax xadis yi fi nekk tele nekk di tegtale def lu baax ci ànd ak mbooloo mu gaax dafay gën a baax te dafay yombal lu baax ak alquran yi koy teg tegtale dafa bëri xadis yi nga xam ne imaam muslim mu ngi ko nettali waa ji nga xam ne dafa rey téeméeri dafa rey juróom-ñeent fukki nit ak ak juróom-ñeent léegi mu bëgg tuub yéen salaay salaam ko wax dem ci benn làbbe ne ko ndax man man naa tuub ndax bu ma tuubee yàlla dana ma nangul mu ne ko mukk yow kay li nga rey yow yàlla dana nangul sa tuub ma nit ñi léeg-léeg dañu foog ne ñoom ñooy yàlla luñ mënul yàlla mënu si mu rey waa jooju muy téeméer ah ñu ebal ko ci beneen sëriñ beneen làmbe mu ñëw ci moom ne ko ndax mën naa tuub mu ne ko waaw nu may def ba tuub mu ne ko da génn ci dëkk bii ñuy mooy yàlla dem jëm ci dëkk bale ñuy ju ñuy ñuy toppee kon bëgg baax jëm ci dëkk bu ñuy baaxee ba tey lu dul tuddut Medina xadis yooyu tudd na ko génnal ci dëkk bii ñuy moye yàlla nga dem ci dëkk bale ñuy toppee yàlla mooy sa ne da am koy wax ne waaw dem Kaolack ne da ngay ori ki ñew Kaolack ne fay ori mom xamna li tax muy mu ñew Kaolack ndax fay or ndax man na ñew Kaolack ne fay or ci mu ñew fekk waxtu yëpp nit ñi di jang alquran na jang alquran mu fekk ñi jang hadith yonntu mu do jang hadith yonntu bi sallallahu alayhi wasallam mu fekk nit ñi di sam musamukor, mu sam kor fekk am ndimbal ci ñu baax am ndimbal ñuy def lu baax li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax saxaaba yi ne am na ñuy ñëw ci seen gannaaw ñoo xam ne ku def ci ñoom benn am juróom fukk ci seen yool yi am na yonent bi ne ko si yool yi ñun wala ci seen yool yi ñoom yonent bi ne leen ci seen yool yi yéen ndax yéen tajiduna ala al xayri awaanan ndax yéen da ngeen di am ay ndimbal ci jëf lu baax maanaam jëf lu baax yéen la gën a yomb ndax gis ngeen ay ndimbal ci baax kon dem fu baax fu ñuy defee lu baax pour jëf lu baax gën laa yomb la mane ne xadis yi wax jaayib bi ne ko ngay génn ci dëkk bi dem ci dëkk buñ dul mooy yàlla waa dafa dem ba ci diggante bi nag malakul mawti fàdd ko mu dee bi mu dee caddi caddi gi li ëpp ci yaramam bi nekk dugg na ci dëkk bu baax bi malaaka yi nag di ko xaccoo malaakaay mbugal yi ne ñoom dañ koy mbugal kii rey téeméer nit ah malaakaay yu euh, yërmande yi ne kii kay ci yërmande la jëm ndax dëgg dugg na ci dëkk bu baax bi nga xam ne dafa tuub te dugg na ci dëkk bu baax bi mu doon jëm ñeneen nañ xiyaas ñaari dëkk yi ban la ci gën a jege bañ xiyaasee gis ne dëkk bi nga xam ne fa la ñuy defee lu baax moom la gën a jege yàlla baal ko ngir loolu kon xadis bi jàngal nañu njëriñal tuub waaye jàngal nañu génn ci dëkk bu ñuy mooy yàlla dem ci dëkk bu baax donte duhut mooy Màkka duhut mooy Medinatu Munawwara moo tax bàyyi ne xoor ci yenn dëkk yi dana gën xoor ci yeneen dëkk yi ngir dëgër ak diine ci yeneen dëkk yooyu ndax nit mën naa am foo xam ne bu fa ooree caaxaan lay dëgg donte moom bëgg ko waaye bu ooree foo xam ne daf koy booleeg làmmiñam a ngi jaamu yàlla noppam yi di jaamu yàlla muy toggaaleeg nit yàlla yi seeni xaal di buural xaalaam jëm ci yàlla loolu jaam bu nekk soxla na ko yén wax ne sangi weer yépp mooy weeru koor waaye weer yëpp bi ci ëpp xorma mooy zulxijja gis nga ñaari weer yi boroom xam-xam yi dañoo demoon di werante ñaari ban moo ci gën weeri aj bu duggee yonent bi sallallahu alayhi wax ne jaamu yàlla ci weer woowu lay gënee lépp lu dul moom kenn mënta am jaamu yàlla bu gën jaamu yàlla ci weer woowu lu may nit koo xam ne dafa génn ci alalam ak ci boppam jëm ci yàlla te dellu suut ànd ak dara ci lim lim génnee kooku rek moo gën jaamu yàlla ku jaamu yàlla ci ashril awail min zil hijja fukki fan yi njëkk yi ci weer aj ñu ne waaw kon weer wi comme nii la te weeru koor moom tim fukki fanam yi mujj ci la layatul xadri nekk te layatul xadri xeeru min alfi shahri ñi ne weeru koor ngëneel gi fukki guddi yi lañ wax guddi yi ndax layatul xadri ci guddi gën nekk kon ñi ne xukmu bi mooy fukki guddi yu mujj ci weeru koor moo gën moo gën ci guddi yi waaye fukki fan yu njëkk bëccëg yi zilxijja ba tey moo gën ci bëccëg yi foofu lañ atte foofu lañ mën amee at bàyyi na na ngeen topp ndigal yàlla yi tabaraka wa taala topp ndigal yonent bi salallahu alayhi wa te mu ne tariqa cheikh tijaani bi ñi nekk du daara lu may topp ndigal yi bàyyi tere yi topp ndigal yàlla yi bàyyi tere yàlla yi leneen du ko ku topp ndigal yi bàyyi tere yi rek ci nga bokk ku reful loolu bokkuloo ci dama tukki gis benn taale boo xam ne dafa am ku ñëw di ko wax ay ngëneel ci tarixa bi loo xam ne bopp mënu ko attan ba mu bëgg a bàyyi tarixa bi ma ne ko gis nga loolu yëpp du tarixa bi tarixa bi mooy li nga xam nii rek mooy wirdo ak wasifa yi topp ndigal yi bàyyi tere yi nga xam ne mooy diina ji cosaan la ci mooy cosaani diina ndax buñ lay wax wirdool wasifaal dafay fekk ndigal yeeg tere yi ci sharia yaa ngi sàmmanteeg loolu ma ne ko li ci des maanaam interprétation bu nit ñi def la waaye loolu du tarixa bi ma ne ko yow ba ngay jël tarixa bi ndax wax nañ la loolu jox nañ la sart boobu la waa ji bugg gëm loo ne moomooy mooy bi ba tax yow loolu sax bopp bi attanu ko nga bugg a bàyyi bi loolu yëpp bokk ci sart tarixa bi moo tax am na ñoo xam ne dañuy oote ne dañuy ooteel euh, tarixa fekk ñi ngi fitnaal nit ñi di wax nit ñi loo xam ne nii seeni i xawsala attanu ko naka xadis yi nga xam ne imaam Ali nee Euh, waxtaanee rek nit ñi luñ mën a dégg ndax da ngeen a bëgg ñu fenloo yàlla ak communauté tariqa bi mooy topp ndigal yi bàyyi sëriñ li ci des nag buntu la yoo xam ne nit ku dund ci xaalam boo xam ne xaal bu bu fekkee wér na kooku xaal la nga nga dund ci sa xaal boo xam ne yow xaal la boo dund nga bugg koo sax koo xam ne moom du xaalam nga bugg koo def un euh, euh, plus un égal deux bu defee moom bu defee moom bu kole yow li nga ko jox 1 plus 3 égal 2 la mu gis ne du égal 2 mu ne comme li nga wax wëru moo tax xaal duñ ko sanit te loolu bokk na ci li jur fitna yu bëri ci tariqa ak ci ñi nga xam ne ñu ngi oti ci fedd bàyyi ne na ku topp ndigal yi daal bàyyi tere yi ci ñu nga bokk ku deful loolu moom bokkuloo ci yoon alqouran a ngi wax ne ñi ne moytandiku ñi nga xam ne dañuy uuteeg ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam fitna jot leen wala mbugal métti jot leen bàyyi ngi fedd liaat wax ne na ngeen ragal yàlla na ngeen ragal yàlla na ngeen ragal yàlla yéen jaamu yàlla yi moytu leen ki nga xam ne moom moom asamaan ak suuf mu yàlla tabaraka wa taala mooy moo leen moom ki nga xam ne ci loxoom la njëriñ li nekk ci loxoom la njëriñ eh, lor yi yëpp nekk ndax ad daaru naafiu wallah kenn mënte jëriñ kenn lu ma yàlla kenn mënta lor kenn lu muy am naka yonent salaay salaam waxee Abdullah ibnu Abbas xamal ne umma bi yëpp buñ jiitu buñ dajee woon pour lor la loo xam ne yàlla bindalu la ko mënuñ la koo lor ñoom ñëpp buñ dajee woon pour jëriñ la loo xam ne yàlla jëriñ la ko mënuñ la koo jëriñ yàlla mi nga xam ne yu baax yeeg safaan yëpp ci loxoom la de yàlla mi nga xam ne moom moom moom moom cant ci njëlbeen mom ci cant ci mujju dari bàyyi bayina ma ngi wax sama wax ji ma ngi jéggalu yalla ngir sama bop ma ngi len di jéggalul yalla ma ngi nuyu kep ko xamne ñu la bok ak ñu la tukkee ma ngi ñaan yalla mu deppale ñu ci li nga xamne mom la bëgg euh ak te gëreem ko ma ngi ñaan yalla tim mustafa saafara xol yi nga xamne dafa febar ñaan gu bay bëgg ñaan آه. فقنا الله لما يحب ويرضى وداوى بمن يقلوبنا المرضى يانا يالا دبل نيو سي لي مبغ اك لي نغرم سافرا سيني خول ييغا خامني ني دانيو فيبر دا مشكله ييب كات سي سي سي سي فيبر خول يي رك لا جوغي دا خول بو فيبر رك موي نيهلو لنن لود يالا واي خول بو وري دو نيهلو دار لما يالا تبارك وتعالى تي نيت ني كات ني سوروخ ييب سي موي دا فا نيه سي نيوم رك بو ناخدي اون سي نيوم رك ني با naqadi woon ci ñoom rek ñu bëgg buñ bëggee yàlla nak mu naqadi ci ñoom lakin allah habba ilaykum al imaana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al kufra wal fusuqa wal asyana ulaika hum rashidun fadlan min allah wa nicma yàlla moo bëggloo ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla yàlla mo leen bëggloo gëm yàlla yàlla moo leen sibloo tim mooy yàlla ni nga xam ne ñii mooy yàlla mooy yàlla ni mu neexee ci ñoom ñi bëgg yàlla gëm yàlla yàlla dem na ba sibloo leen loolu ba buñ gisee jaam buy buy mooy yàlla buñ xamul ne ñoom duñ binduñ jaam bi moomuñ ko mën nañoo bañ sax jaam boobu mën nañoo bañ jaam boobu ngir bañ giñ bañ jëf lu ñaaw waaye ku gëm yàlla duñ ko bañ ay jëfam la bañ boo gisee ku gëm yàlla ku def lu ñaaw na nga góor-góorlu ba yow bul ko bañ bañal jëf bi waaye ku gëm yàlla duñ ko bañ waaye ku bind loolu seen mbokk mu leen yërëm axookumul mushfiq xam nga lii ku yërëm nit rek moo koy wax ibrahim ibn xay abdullahi tijaani latafa allahu bihi wa bi ahbaabi amin yàlla ñëweti ko ak mboolee mi soppeem kon ñaan googu ba léegi mu ngi diri sembaanaam ci ñun ñi ñëpp nga xam ne ay soppeem lañ am xalla taybata kawnahu shamamtu riijal haashimiyin fa arrixu ختام نبوات النبيين لا ترى وعيد المقفى وهو بالمسك يدمخ خليلي خليلي أحمد الخاتم الذي أتانا بدين ثابت الأس يرسخ أركانه التوحيد ألمان قائل بأن إلهي بارئي من يوبخ فذاك نصلي ما درينا شريعة خلت من صلاة قط فالشأن أشمك نصوم كما صام النبينا قبلنا وهل عاب صوم عاقل أو مؤرخ كذاك صلاة ثم حج فكلها من الشمس أضواء بل من الشم أرسخ ولو منع التزويج ما كان عابد ولا عمر الداران أين الموبخون وتعداد زوج الشرع جاء لحكمة تعود لنسوان إلى يوم ينفخون إن لم يكن قل في جموعا عوانسا تخالف أحكاما وكيف توبخ نعم وغدا رد اعتداء وما عدا فطاها على الأكوان يسمو ويشمكون عليه الصلاة والسلام سلامه وآل وصحب من محب يؤرق خيال سرى أم حل طيبة كولخو شممت أريج الهاشمي فأرخوه xayaalu ndax ceeneer saraamoo rañaan am xalla wala dafa wàcci kawlaxu kawlax taybata tayba ma ne ndax lii damay janeeram wala kawlax dafa mujj di Tayba ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam semamtu xeeñtu naa rijal haashimi gëttëg xeeñ ak كوجو هاشمي مي يونس صلى الله عليه وسلم فارخوا تاريخ لين بس بي لين تيون تاريخ الكو كون كو جاب فيت باي واو لو في مدينه كولخ لا ولا طيبه المصطفى لا nga xam ne xetam gu neex googu moom la doon wax ci rexlaam bu njëkk bi yaa taybatal mustafa yaa tiba rayaaki فالحسن أجمع يبدو من محياك علوت مكة ذات البيت شرفت بالبيت والبيت من طه وبشراك يو طيباك مصطفى أنا ماني أو سن تايك taar yépp ci sa xar kanam bi lay feeñ yaa kawe makka ma kaaba gi nekk ndax màkka ci néeg ba la teddee waaye néeg bi ci yow la teddee da bàyyi waxoon aalim bi mu doon tontu ci ajam gu njëkk ne ko ñun bëgg yonent bi sallallahu alayhi moo ñu indi fii buñ xooloon ngant yi téere fiq yi def ñu am ne am nañ gàntal ñëw aj si ñu ne ko bul wax loolu néeg bi nga war a wax bàyyi na ko yonent bi laa wax ndax néeg bi nekkoon na fi ñu fiy jaamu ay xëram ki ñëw xamal ñu néeg bi xamal ñu dayoom néeg bi xamal ñu borom neg bi mooy maanaam yi kooku moo ñu fi kon daf doon toog xeti Medina di ko xeeñ ba muy jaawalee ndax fii laa nekk wala fële laa قد فاح لي من نشر أحمد فائح فحرمني النوم الدموع السوافح باين أنا جتك أحمد xëñ na ma de ji bonni bonni na xeeñ ma ci xet ak yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam xet ak yonentu boobu nga xam ne moo gën a neex xet ak misk musalmata don na jël ñaq yonent bi ummu suleymin jël ñaq yonent bi sallallahu alayhi wa ñi koy def ci seen gëtt yi seen seen cuuraay yi pour mu gën a neex bàyyi ne xet ak jolli na xeej ma may jooyee jooyee jooyee jooyee jooyee ba ronkañ yu bari yi tuuru xañ ma samay nelaw أن يكون لا رجوع من قتنا سوى قلبي تقطع أكبادي بعشق ومطمع تنازع يأس فضاق الجوانح ليس motax bu ko xet gi xeñe te fi la كولاخ لا نيك ولا ندخ مدينه لا نيك اي كوم موم يونت دوكو فادو ما غاب عني الدهر برا ولا بحرا ختام نبوات متلك يونتي خوت خاتم نبوات واينا ختام نبوات لولو بور كي اجي موتلي غاني موي موتلي موي موي جيمي موتلي ختام نبوات النبيين متلق يننتق يننتي لا ترى دو جس بعيد المصطفى قنا مقفى قنا يننتي صلى الله عليه وسلم كين توب اي جيهتم وهو موم يدمخ دنا بني بالمسكي تجتك مسك danaay xegn misk ndax yonentou daf da laal misk ci xamal la len jiduneum ndax hubiba ilay min dunyakum salas النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة كون نيت يي مونغي سي ادينا گت سي لا بوك گت گو نيه جاي كتي گت يي جي ريو عربي دنجكو موكال نك كو نيو نيلا comme yonent bi ñatt rek la ñatt la wax ne mom la bëgg ci adina sa ñetteeli alal boko defoon ci gëtt yàquloo xaliss donc ko ne dañ koy jaayee rek khalili sama soppe khalili sama soppe ahmadu ahmad la man sama xarit mo yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi jappu ku du yalla muy xarit waye kum neex nga japp yonent xarit ndax abu hurayrata moo wax ne awsaani xalil yi sama xarit mu yonent bi dénk na ma xarit mooy kan xul la mu ngi jugee ci xilaal boo xam ne seeni jikko dafay jaxasoo boo xaritoog say jikkoog jikkoom dafa war a jaxasoo ku xaritoog yonent bi kay sa jikko jaxasoog jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam say jikkoy dem jikkoom di dem kooku sa xarit la waaye moom yonentu daf ne law kuntu muttaxidan غير الله خليلا اتخذت ابا بكر خليلا ودون ديف كل دي الله موي سوبي كون موي ابو بكر موي سما سوب موي سما خريط احمد الخاتم كي اجي موتلي جيونتي الذي كان خامني اتانا ديكل نانيو بدين في دين ثابت الاسي بي اجي صح ني تشوسان يرسخو دون الصح اركانه konki diine jooju التوحيد مويويتال يالله هل معنى ndax fenn قائل aji wax bi anna ilahi naka aji naka borom sama baari i mooy aji bind sama ndax ku wax ne yàlla ma bind da ngay fen bi maanaa fenoo man yu wabbixu ana kan moom mooy xas kuy wax loolu tawxid xel yi yu wér yi dëggal nañ gis nga jaam yi pour xam ne yàlla am na loolu moom rek loolu taxut yàlla yónni yonent yi ndax borom xel yu wér yi àgg nañ ci xam ne yàlla am na waaye xel mu wér moo àggut ci xam ne nii lañu war a jaamoo yàlla taarix yëpp ñi ko bind dëkk yëpp ñu bind ci taarix li gëna jitu ci li nga xamne mom lañ mo mandar gaay dëkk yi nit ñi di dem fo dem rek da nga fekk nit ñi am luñ defar diko jaamo yalla wala in sa'alta man xalaqa samawati wal ard la yaquluna allah da ñooñu mushrikeen yi la yalla di wax bo leen laaje ku bind asaman ak suuf ñi ne yalla kon xam yalla amna mom xel rek daf ci ni kel rek mën na laa àggale ba àggale la ci wéetal ko tim waaye dëgg dëgg muhimma yonentu yi mooy xamal nit ñi ni ñuy jaamoo yàlla ndax xamal nit ñi ni ñuy jaamoo yàlla loolu moom xel mu neex du ci àgg xel mu neex mun naa taalif ay lépp waaye xel mu neex mënta taalif taarix xam nga nit mënta neex xel ba mën a taalif taarix xel mu neex nag mën naa taalif lépp junney lépp waaye mënta taarif benn taarix boo xam ne nii euh, benn seconde sax la xewoon naka noonu xel mu neex dana àggale jaam ci xam na yàlla am na waaye li des ci ponk yi yonent moo koy wan nit ki yàlla ñëw na ne julli leen ba mu ne julli leen bu noppi woon tamit duñ xam nu ñuy jullee dégg nga boo ci amoon léegi doo xam ni ñuy jullee waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñëw julli jàngale julli moo ñëw aj jàngale aj moo ñëw jàngale koor wa hakada kazaka naka noonu nusalli dañ julli maa daray naa xamuñ shariatan sharia xalat weet na min salaatin ci julli xattu mukk fa sha'nu mbir mem julli asmaxu moo gën a màgg loolu yonent yëpp dañ doon julli nasuumu dañuy xoor kama saama comme naka doon xooree annabi yu ne yonent yi xabla naa njëkk suñu comme ni ko téere bi waxee kama kutiba ala llaziina min qablikum la'allakum tattaquun wahal aaba ndax ŋàññi na maanaam xas sawman xoor aaqilun aji xelu aw mu ërrixu wala aji taarixal ndax borom xel dana dana dana dana dana ayibal or kada naka noonu zakatun azak azak moom xel yëpp war nañoo dajee ci na baax na mooy ñenn bañ koo lekk bàyyi ñi des ñi ñi xiif buñ xiifee dañ daanu ci seen kaw ñi xeex bu ko defee ñëppay yàqule su ma xajjun topp xaj fa kulluha képp ci lu ci nekk am na ay xikma yoo xam ne ñu taxawoon jul ñi fekk ñi ci adwa moo gën a leer mina shamsi ci jant bël bàyyil arsaxu moo gën a sax mina shummi ci montagne yee way kawe walaw mu ne ah doonte terewoon na ak taswiju sëy maakaana kon du nekk a aabidun aji jaamu yàlla yàlla dafa indi jaam yi pour ñu dundal suuf jaamu yàlla bu fekkoon ne dañoo tere sëy kon ku fi jaamu yàlla du fi nekk wala umira te du dundaleef dundaleefu daaraani ñaari kër yi àddina alaxira aynal mu wabbixu ana kay xas di bonal loolu ñenn ñi ne waaw sëy sax xam nañ ko waaye nag lu tax ay jabar yu bëri lu ëpp benn comme li lislaam maye bàyyi ne wa taadaadu zawji sharay lim jabar jabari sharia jaa dikk na li xikmatin ngir xikma boo xam ne nii taawdu dana dellu li niswaanin jëm ci jigéen ñi ilaa yow ma yenfaxu jëm ba ci bés ba nga xam ne ci la ñuy wal bufta bi gis nga li yàlla may góor mu am lu ëpp benn jabar njëriñ la boo xam ne ci jigéen ñi lay dellu ba ba ñuy walee bufta bi ndax àddina bi xam nañ ne jigéen ñi dëkk boo dem jigéen ñi mat nañ góor ñi ñeent ñoo ëpp bu fekkoon na góor gu nekk benn jabar rek la war a am kon jigéen ñi way lamb yi dañ bëri bàyyi na fa in bu nekkut tul fii ngay fekk jumuan ay ki mbooloo yu jigéen awaani seen yedda way lambu tu xaalifu di uuteeg ahkaaman atte bu koy fa naka ngay ŋàññee kon bu fekkee ne sax gisoo woon ay jigéen yu lamb yoo xam ne tax na ñuy dem di mooy yàlla di uteeg atte sharia yi sax nga mën a nga mën a ŋàññi li waaye boo fi gisee jigéen yoo xam ne ñàkk jëkkër ubbil na leen bunta mooy yàlla kon nga xam ne ñi am jëkkër di la buy lim ay jabar la te sàmmoog seen diine yi loolu xikma la boo xam ne njëriñal jigéen ñi la نعم واو وغدا تاخرنا رد دلونا اعتداء اكتوني لم اخون تي رحلة بي. فإن النبي الهاشم الدهرة ما غدا بلا صد عدوانا ورد دلالا ينتبي سونغو قيح نجير سونغو واي قيح بوم دفرك دفا دلو اكتوني Denga ak tooñ njëkk muy aksi way wa ma ada jàggatiwut fa fataha taha ki yonentu yeshmu dana kawe wa yashmahu dana kawe al akwan ci nek gi yonentu sallallahu alayhi wasallam gën kawe mbiri adina ku gëna kawe mbiri adina do xex ngir xex dafa xon sahaba yi ngeen indil ma nit mu gëm mo gën moma gënal ngeen indil ma nit ku ñu ray yonentu sallallahu alayhi wa sallam xeexutoon pour xeex waaye pour taxawal dëgg rek ndax ku doon xeex ngir xeex boo demee ba gañe nit da nga koy faagagal waaye benn baat bii rek kuñ bëgg a rey sax nga ne ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasulullah ñi bàyyi la xam nga ne ku euh, xeex taxu ko jóg waaye xettali jaam yi moo ko tax a jóg te jàngal le na yàlla jàngal na ko waxtu woo xamee ne noonu yi luñ mën a def buñ jéngee jëm ci jàmm rek yow jéngal jëm ci jàmm in janaxu li salmi fajnax laha buñ jéngee jëm ci jàmm rek jéngal jëm ci jàmm bëggut xeex ndax wax na ne bu leen mébét sax dajeeg noonu yi laa tatamannaw liqaa al aduwi tasalullah al aafiya in laqitumuhum fasbutu sbiru bu leen mébét sax dajeeg noonu yi ñaan leen yàlla jàmm bu leen ñaan yàlla xeex di am ñaan leen yàlla jàmm waaye nag bu demee nag ba benn pexe amul lu may xeex bu boobaa nag moom bu leen daw kon maanaam lislaam ñi nga xam ne saqaafatil qatl moom la ñuy nëchr di ko terwij di ko tes teswiqal di wane ne loolu mooy islaam lislaam du loolu lislaam diiney dund la diiney jàmm la diiney jàmmal la tim alayhi salaatullahi wa salaamuhu وآل وصحب ما المحب يؤرخ يجول شيء أنت صلى الله عليه وسلم فك أجي بق مجي تاريخ التاريخ يوم تتلو للدنيا دي أم كن جل جو مجي كنت نه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما برهام باء وراء ألف ثم هاء mi mu mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan